bon comme ni nga ko waxee tey jii hôpital bi dafa am bés boo xamante ne bés bu mag la boo xamante ne mosuma ko fekkee ci bésam yi di bés boo xamante ne kenn moo ko waral muy maître Malick Sall donc euh, comme ni ngeen ko xamee hôpital bi dafa nekkoon ci ay jafe-jafe yoo xamante ni vraiment yu ko xaw a dépassé. ci wutum euh, ci wutum euh, yenn defar yenn defar yi ci hôpital bi ci li jëm ci ay taax ak yu demee noonu donc si euh, biir loolu aussi yàlla def aussi ñu gis maître Malick Sall donc ci si man la ko yàlla jaarale ma gis ko ak Jean Jean Masso principal CM de Ourossogui xamal ko vraiment directeur di am na yoo xamante ni da ko bëgg te liste aussi baa ngi nii ñun ñu conseiller ko tànnal ko aussi ñaari point yoo xamante ni yu amal hôpital bi njëriñ donc euh, mu accepté ko financé ko aussi ci ci ci ci xaalisam ba tax na aussi ñu ni bés boobu aussi dañ koy réyal directeur dafa kontaanoon ba ni lii ISA duñ ko bàyyee nii donc euh, dañ koy fexe defal benn inauguration boo xamante ni mu nekk événement bu rëy bu ñëpp di dégg ndax ëllëg aussi yenn fils di territoire aussi du terroir plutôt de la région ñu xam ni carrément que seen loxo war na dem ci hôpital bi comme ni ko waxe bok na ci ambulance bo xamanteni maître indi nako gis ngeen ko sank mo ngi non garé ci fi ñu war a activité bi man de yag na gis ambulance mais wax dëgg yàlla mosuma gis lu melni ndax té dugg naa ci biir gis na ni mel ambulance médicalisée 100 donc ci chauffeur ba ci ginnaw li ma gis ambulance bi su ci si dans la région de Matam mën naa ni man Issa donc li may wax lu ma xam la parce que dalay lay liggéey donc fi la ambulance yi dañu gaare gis mosuma gis lu mel du ñu def lu dul di ko ci sant voilà beneen bi aussi bokk na ci lim fi def loo xamante hôpital da ko bëggoon def amuloon ay moyens benn bi mooy fexe na ba nga xamante ni mu ñu wutal ñu fi un service de consultation externe ci ay temps service bi dafa rattaché woon ak service des urgences donc malade bi boo ñëwee mën nga am une heure temps deux heures temps kenn du la mën gis ndax docteur bi mu nga ci urgence yi mais léegi dañoo séparé euh, ñaari service yooyu yàlla ak maître Malick Sall mooy service bi ne fii sama sama wet donc foo mëntu jógee dans la région diggante 8 heures ak 10 heures mën nga gis docteur bi ba faju dem si yoon ak aussi benn hangar des accompagnants xam ngeen nii suñu hôpital accompagné amuñu fu ñu fu ñu fu ñuy fu ñuy fu ñuy toggee ataaya fu ñuy toggee añ fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu noppalu pour mun noppaloo seen i seen i mbokk yàlla ak maître Malick Sall mu tabaxal fi hangar bu mag boo xamante ni mun na yóbbu accompagnant malade yëpp te duñu sonn da doon taw du ñu fu ñu dugg donc euh, fenn fu ñu amoon fu ñu doon laqu mooy ci suufu garab te loolu boo lalee sa bassan da ngay surveiller balaa keneen ñëw lali lal bassan donc mun nañ ni coono boobu actuellement vraiment fàtte nañ ko bon fexe na aussi ba yoon bi nga xamante ne porte centrale la dañ koy délocaliser indiwaat ko boor bi ndax boor la ba dafa xatoon yoon boobu ñaari malade mënuñoo xajandoo ci pousse-pousse malade yi nekk laboo aussi amuñoon seen intimité

arrivé Malik Sall pour euh, un investissement bi mu fi fournisseur bi aussi def pression sur le directeur de faire livrer le matériel Mion. Le directeur wax ko wax ko rapidement maag Jean Mas ñu accordé ko loolu yóbbu fa ciment yóbbu fa carreau yóbbu fa du fer donc yàlla ak loolu tey jii gars yi installé rajo bi ba commencé na marché te ñu bëri dañ doon dem ba Matam même si ñu la opéré ni sànq ñu war a vérifier ndax si c'est bon ou pas dañ la yóbbu ba Matam defal rajo ñëwaat donc loolu aussi maladie fàtte nañ ko yàlla ak maître Malik Sall bu ñu xoolee aussi coïncide na ak benn mosquée boo xamante ni bi dañ ko tabaxoon ba mu des raax bi béton euh, def carreau bi ak moquette bi hein, ak euh, installation électrique bi lépp maître Malick Sall jël na ko aussi en charge donc euh, bu ngeen neexee mu ngeen dugg xool aussi mosquée bi bokkul aussi ak dallage bi ngeen gis ni carreau yëpp moom moo ko moom moo ko moom moo ko defar si maître Malick Sall de bu ma ko xamee yàggut mais mën naa seede ci moom lu bëri parce que man politicien bu mu mës a àndal politique koy def politique développement lay àndal ka ma àndaloon fii vraiment moom la mës a xam yàlla def na aussi ma war a changer de camp ma amoon sama benn xarit buy liggéey aussi ci ministère de l'intérieur moo ma moo ma moo ma conseillé ndax xam naa maître ma ne ko xam naa ci tuuti moo xam na ci lu bëri donc euh, ma li ma waxoon ni aussi ma gis ko ni vraiment nit ku baax la aussi nit ku mën dimbal la taseeg aussi samay renseignement man damay yëngu ci santé parce que man maay président du comité santé district district sanitaire de Matam boole ci amoon sam benn xarit boo xam moo ngi dencaari tudd Malick Tall nekk président comité santé dencaari moom moo ma ni seen ci seen CIE bi maître financé na foofu je pense que 1000 personnes cotisé na leen donc kooku bi mu koy def yaakaar naa dugguloon sax ci politique ci ci ci ci ci Macky Sall donc yàlla moo taxoon vraiment mu ak mbaaxaayam moo taxoon mu def ko boole ci aussi. bëri na ay dëkk yoo xamante ni soxloon ay ay ay jàkk yenn yi moo leen tabaxal yenn yi aussi moo ko moo ko eggale e ni mu fi nekkee aussi gis naa fi ñu bëri ñu fi ñëw feebar war a faju ma dégg naan seen loxo maître Malick dugg na ci seen faj pour vraiment ñu génn ci e, e, feebar yooyu ñu fi indi donc daal nit ku baax la et puis nit ku modeste la ndaxte li ñuy def tey moom dañu woon loolu jaru ko jarul ñuy def événement bu rëy ñun ñoo si jàpp ñu ne ko si jar na ko jar na ko maître da ngay bàyyi ñu def ko année politique euh, sociale bi nga wax bi Macky Sall lancé euh, pour mu dem mu jàll def ni maître rek ba ñu déglu nit ñi di liggéey li mu def lii tey ci hôpital gi bu ko ñeneen defoon seen hôpitaux yi yenn coow yi vraiment dina wàññeeku la paix sociale dana am fu ne comme ni ma ko waxee nga doon ñëw fii faj war a faju huit ñu lay xaarloo ba midi loolu maire Sall maire Sall dina ko fii donc loolu day indi une paix sociale n'est-ce nga soxla aussi yenn consultation yi aussi amu fi woon maître indi na ko fii donc loolu aussi day indi une paix sociale donc liggéey bi daal pour man euh, bu ñu ko defee amatul amatul wax mais ne fi nag di tontu opposition franchement pour man man sama tontu mooy ma liggéey nga gis mais doo wax ma tontu la lu PIDC est là donc mun nañu wax PIDC mooy lan lan ak lan fu mu jaar si waa genre programme yi mel noonu doy na tontu opposition nga xool. dëkk yoo xamante ne musuñu xalaat ne danañ am forage parce que amuñ benn leader politique bu ñu si mën a jàppale musuñu xam ne danañ am benn piste musuñu xam ne xalaat ne danañ am courant amul benn leader boo xam ne mën na leen si xëcc pour mu ñëw Macky Sall fexe ba PIDC ñëw foofu ñu am seen forage am seen courant hein? donc euh, loolu vraiment yaakaar naa doy na doy na tontu doy na tontu maanaam du ma koy tontante opposition ak ñoom seen li maître def daal bu ñëpp defee jamono ñoy wax lu bari appel bi may lancé moy ñu bolo and nek ben def ni maître def keroog bi ñuy wajal les élections bi passé ni moy le référendum dajale na tout ogo temps yoy ñom duñu ñu ken kenn mënuloon ba ben leader ci ogo toog ak morom yalla ak maître sal mo len wox ni APR lañ bokk waxtan aussi wax dëgg ci la Macky moy wut lañu fexé faté jaar kenn su ku ne si ñoom ñoom ñëpp ñu nangu ni maître yéex nga fi ñëw.